وأقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء حي على الصلاة وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه واخوانه اما بعد mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante borom bi subhanahu wa taala seede ne moom kese moo yeyoo jaamu amul kenn ku ñu koy bokkaaleel seede ne Muhammad jaamu yàlla la ndawam la yal na ko yàlla yokk xéewal barkeel ko moom ak ñoñam ak i saxaabaam ak ñu topp ci seen ginnaaw ginnaaw loolu mbokk yi borom bi subhanahu wa taala wax nañu ci alquran ne ñu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla ragal leen borom bi subhanahu wa taala te ku nekk ci yéen na bàyyi xel lan la dawal ci ay jëf lan la dawal jiital ko ci ay jëf ndax boo demee la nga jëfoon rek moom nga fay fekk borom bi ne kon ragal leen yàlla te xam ne yàlla lépp lu ngeen di def moom xam na ko dara ump ko ca kon nag mbokk yi ragal leen borom bi subhanahu wa taala ngir ngeen texe bari leen ay jëf yu baax ndax xam ne ñun ñëpp balaa yàgg ñun ñëpp dinañ fi jóge te borom bi nee na yowmal qiyaama moom mbir ya leer na man amila salihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha thumma ila rabbikum turjaun lu waay def boppam ku def lu baax lu baax la yow kese lay jariñ borom bi subhanahu wa taala dara du ko ca jariñ dara du ca du ko ca lor képp ku def lu mon yitam ci sa kaw rek lay xëpp borom bi subhanahu wa taala kenn mënta àgg ci lor ko ba di ko lor kon nag euh, ku nekk rek jëfal loo xamante ne moo lay jariñ yowmal qiyaama ndax ñun ñëpp ci borom bi subhanahu wa taala euh, ci la ñuy dellu mbokk jullit yi ku nekk war nga di fàttaliku sa borom di ko tudd moo xam jamono ju neex la euh, wala jamono ju naqari la ndax booy tudd borom bi subhanahu wa di ko fàttaliku ci jamono yi naqari yi yu metti yi ci jamono yu neex yi ci la la borom bi subhanahu wa taala moom itam di fàttalikoo di la jàppale di la dimbali ci jamono yi nga xamante ne naqari na tar na mbokk yi boo toogee ba fàttaliku ñi nga xam ne ñooy way dawlu yi génn àdduna jàppal sa bopp ne yow kenn nga ci ñoom ndax dañu laa jiitu rek waaye fa ñu nekk da leen fa fekk mbokk yi boo xalaatee àdduna ak di ko mébét ak euh, li nga fi bëgg na nga xalaat yooyu nga bëgg yépp di ko mébét ngir am ko yooyu yépp boo ko amee fan lay mujj fan lay mujj lépp danga ko fi bàyyi dem wàcc ko fi ñeneen séddaloo ko loolu lépp danga koy xalaat mbokki jullit yi nit ñi bu ñu génnee ci seeni bàmmeel yowmal qiyaama eh, duñu sol dara dañuy set wicc duñu sol tànk du ñu sol dàll duñu sol yére bis boobu la borom bi subhanahu wa taala ne dalika yowmun majmuun lahu nnaas bis bi nga xam ne ci lay dajale nit ñëpp wa dalika yowmun mashhud bis la boo xamante ne bu ñuy seede la bu ñuy teewe la amul kenn kuy absenté ña yàlla njëkkoon a bind ak ña mu bind ñépp koy teewe borom bi subhanahu wa taala wax ñu ci alquran ne zaama alladina kafaru an lan yubaasu nee na yéefar yi day jàpp nañ ne ñoom bu ñu deewee kenn du leen dekkal kenn du leen dekkalaat borom bi ne waat naa ko ci sa borom yow yonente bi yow julit bi ne ñoom ñépp dinañ leen dekkal bu yowmal qiyaame te ku ci nekk ci ñoom dinañ la wan la nga xamante ne moom nga jëfoon mu nekk ci sa kanam te nee na loolu lu yomb borom bi la subhanahu wa taala mbokk yi bis mu màgg boobu nga xam ne mooy bisu penc borom bi subhanahu wa taala day teg ay balance yoo xamante ne ci lay peesee jëfi jaam yi ngir wane maandu goo xam ne borom bi maan na ko maandu na ko ngir bañ a tooñ kenn loolu moo tax day indi ay balance tegal la fii sa jëf yu baax tegal la fii sa jëf yu bon lépp bépp boo xamante ne nott na ci rek bu boobaa loolu mooy la nga xamante ne mooy sab atte borom bi nee na wa nadau almawasina alqista li yawmi alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kaana misqaala xabbatin min xardalin atayna biha wa kafa bina xaasibin nee na bis booba dinañu teg balance yi nee na bu kenn ku ñuy tooñ ci dara du ca am ku nekk loo jëfoon lu mu tuuti tuuti bu toloon ne fépp suuf sax dinañ la ko indil tegal la ko ci balance bi nee na borom bi subhanahu wa taala képp kuy atte borom bi moo la gën a mën a atte moo la gën a xereñ ab atte bu boobaa nag bu ñu nattee jëf ya ba pare borom bi nee na fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun nee na koo xamante ne say jëf yu baax not ne say jëf yu bon kooku mooy ki nga xamante ne mooy ki texe waaye nee na koo xamante ne nag balance am woyof na maanaam ay jëfam yu baax néew na bu boobaa kooku mooy ki nga xam ne mooy ki kooku mooy ki nga xam ne mooy béel ca jahannam yal nañ ci borom bi musal kon nag ki texe mooy ki nga xamante ne bala ay balance am yowmal qiyaama dis na gann ak jëf yu baax waaye ki perte mooy ki nga xamante ne ay balance am na ngir néewu jëf yu baax yoo xamante ne doon na ko def fa amma man saqulat mawazinu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية borom bi subhanahu wa taala nee na ñi nga xam ne seeni jëf diis na seeni jëf balance diis na ci jëf yu yiw yu baax nee na ñooñu day dund bu neex ci la ñuy nekk ci aljanna ya neex ya la ñuy nekk waaye koo xamante ne ay balance am woyof na nee na kooku de wal iyaadu billah mujjam mooy nekk safara safara wu tàng jër kon mbokk yi bis boobu nga xam ne mooy bisu yi ku nekk la ngay mébét mooy am ay yiw yoo xamante ne dina diisal say balance jëf yu baax yoo xamante ne buñ ko tegee say balance dina diis gann waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaaxam ak laabiire gu muy laabiire xeet wi wax nañu ay jëf yoo xamante ne bu ko nit ki defee bu ëllëgee yowmal qiyaamam ay balance am dina diis gann loolu nag ku nekk ku am xel ku nekk jullit bu nekk war ngaa xam jëf yooyu yi nga xamante ne day diisal day diisal ay balance yowmal qiyaama nga góorgóorlu ci ba bu ëllëgee boo ñëwee nga bokk ci ñi nga xamante ne seeni balance dafay diis gann bokk yi bokk na ci liy diisal ay balance yowmal qiyaama mooy taxqiqu tawxid wa ixlaasu shahadatain lillahi rabbil alamin maanaam wéetal borom bi subhanahu wa taala sellal borom bi subhanahu wa taala bañ koo bokkaale ak dara loolu ci liy gën a diisal balance yi jaam bi yowmal qiyaama ci la ci la bokk loolu moo tax ku nekk war ngaa nemmeekuwaat bu baax a baax sa tawxiid wéetal gi ngay wéetal borom bi subhanahu wa taala xool leen xadis bii nga xamante ne tirmisi moo ko solo jële ko ci abdullah ibn amr ibn as radiallahu anhuma mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Euh, bu yowmal qiyaamee am na waa juy ñëw ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu taxawal ko ci kanamu nit ñépp daal koy génneel ay jëfam yépp dossier yi nga xamante ne moom lañ bind jëfam ya mu defoon yépp ñu daal di koy teg nee na dossier bu nekk rëy rëy na euh, yaatu yaatuwaay boo xam na ngay xool ba sa sa bët yam te doo ko jeexal borom bi subhanahu wa taala bi mu ko tegalee li mu jëf lépp ci kanamam daal di koy laaj ne ko ndax ñi ma digaloon ñu lay bindal say jëf dañu laa tooñ dañu laa bindal luñ loo defut ba jaam bi daal di ne déedéet wallahi sama borom lii ñu bind lépp man maa ko def borom bi ne ko waa ndax am nga ngànt dafa am lu tax nga jëfoon jëf ji danga amoon ngant mu ne ko wallahi sama borom aw mu benn ngànt Ah, borom bi subhanahu wa taala ne ko waaye nag am na jëf ju rëy joo xamante ne moom nga defoon te tey kenn du tooñ kenn lan mooy jëf jooja ñu daal koy indil benn bitaaqa benn këyit boo xamante ne lañ ca bind mooy ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jaam bi bi mu gisee këyit woowu daldi koy xeet jaaxle ndax liñ ko tegal ci ay jëf yu ñaaw bari na lool nan la këyit wu ndaw wi mën a note diisaayu jëf yu ñaaw yooyu mu def yépp moo tax mu laaj ne waa këyit wi lan la ma mën a jariñ ak yu ñaaw yii ma def yépp waaye nee nañu ñu daal di teg balance ba daal di jël jëf yu ñaaw yépp daal di koy teg ci benn euh, côté jël bitaa euh, këyit woowu nga xamante ne ci la baat ñaari baat seede yi nekk teg ko ca benn côté ba nee na ba mu ko tegee mu diis gann ba not jëf yu ñaaw yépp yi nga xamante ne moom lañ doon def boobaa ci lañ koy waxe ne ko turu borom bi subhanahu wa taala amut lenn lu ko mën a gën a diis loolu mbokk yi xadiis la bu rëy rëy boo xamante ne borom xam-xam yi dañ koo jagleel sax taalif ci ay téere ngir wan wane tawxid ni mu amee amale solo jaam bi yowmal qiyaama ak ni muy diisalee ay jëfam loolu bu ko jaam bi xamee dina góorgóorlu bu baax a baax fu mu toll di nemmeeku xolam ba nga xamante ne dara luy bokkaale du ci nekk ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne inna allaha la yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla du jéggale koo xamante ne da ngay bokkaale ak moom leneen lu waay mën a def nag lu rut bokkaale bu ko deewaalee bu neexee borom bi subhanahu wa mu jéggal ko mbokk yi kon baat boobu nga xamante ne nit ki mi ngi koy e, baamtu fa mu toll naan ashhadu an laa ilaha illa allah bu fekkente ne sell na jóge ci xolam te defu dara loo xamante ne day wàññi baat boobu wala mu di ko yàq mel ne di ñaan keneen ku dul yàlla wala di jaamu keneen wala leneen ku dul yàlla wala di dikkal ñi nga xam ne ñooy njabarkat yi ak gisaanekat yi yooyu yëpp bu ko moytandikoo lépp loo xam day yàq baat boobu wala di ko wàññi bu ko moytandikoo bu boobaa dana am yaakaar lool ci ne jëfa ay balance am yowmal qiyaama ne dina diis gann mbokk yi bokk na ci liy diisal ay balance yowmal qiyaama itam mooy jikko ju rafet jikko ju rafet te mooy jëflante nit ñi jëflante bu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ma min cheyin yudaau fi lmisani asqalu min xusni alxuluq nee na amut lenn lu ñuy teg ci balance yi yowmal qiyaama lu gën a diis jikko yu rafet jikko yu rafet nag bokk na ci mooy wax wax ju rafet ju jekk mooy muuñ sax ci kanamu sa mbokkum julit mooy laabiir mooy am yërmande bokk na ci jokk ak mbokk rafetal jëm ci nit ñi loolu lépp ci ay jikko yu rafet la yoo xamante ne dafay diisal balance su jaam bi yowmal euh, qiyaama te jukko yu rafet yooyu nag ñépp nga ko war a jëflanteeg ñoom moo xam julit ñi la moo xam ñu dut julit la moo xam mag la moo xam ndaw la moo xam góor la moo xam jigéen la moo xam ku woomal la moo xam ku ñàkk la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci hadis ne inna rajula la yutriku bi xusni xuluqihi darajata saimi alqaim mene nit ki ci rafet gu mu rafet ay jikko mën naa dem ba àgg ci daraje ñi nga xamante ne fu ñu toll ñi ngi woor fu ñu toll ñi ngi taxaw di julli ak di jaamu seen borom kon jëf ju euh, jikko yu rafet bokk na ci lii diisal balance wu euh, jaam bi yowmal qiyaama ku nekk war nga ci xiir bu baax a baax di rafetalaat sey jikko di ko nemmeekuwaat ba nga xamante ne dina dëkkoog dëppoog li nga xam ne mooy jikkoy rafet bépp jikko bu ñaaw boo am nga jéem sa kem kattan ngir tàqali ko ak moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna min ahabbikum ilayya wa aqrab wa aqrabikum minni majlisan yowma alqiyama ahasinukum axlaqa nee na ñi may gën a jege bu yowm alqiyamé ñi nga xam ne ñooy sës ci moom ci man moom yonent bi sallallahu bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo gën a rafet ay jikko yent bi sallallahu alayhi waxaat ci xadis ne li ëpp ci liy dugal nit ñi aljanna bokk na ci ragal borom bi subhanahu wa taala ak jikkoy rafet mbokk yi bokk na ci eh, jëf yi nga xam ne day diisal ay balance yowmal qiyaama te mooy ñetteelu jëf yi ginnaaw bi ñu tuddee wéetal borom bi tudd itam eh, jikkoy rafet ñetteel ba nag mooy di tudd borom bi subhanahu wa taala zikrullahi taala di tudd borom bi subhanahu wa taala loolu bokk na ci liy diisal balaasu jëf yowmal qiyaama yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis nee na kalimataani xafifataani ala lisaan saqilataani fi lmisan xabibataani ila arrahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim nee na ñaari baata ngi nii yoo xamante ne yu woyof lañ ci làmmiñ waaye nee na yu diis gën lañ nag ci balaasu jëf yo yowmal te itam ay baat la yoo xam ne yu borom bi subhanahu wa taala sopp la te mooy subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim sellal borom bi subhanahu wa taala soril ko lépp luy nuru ña wala leneen loolu jaam bi baat la yu woyof yoo xamante ne jaam bi mën na fu mu toll di ko baamtu ëllëg muy génne ci làmmiñam wax joo xam ne dañ ko cay bindal loo xamante ne euh, baaxut naka noonu yonent bi salaa salaam wax nañ ci xadis ne képp koo xam ne wax nga subhanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon ci bis bi nee na say jëf yëpp say bàkkaar yëpp dañ la koy sippil même bu fekkonte ne bàkkaar ya bari na bari ba mel ne puuritum géej gi puurit may génne ci douche géej gi nee na même bu fekkonte ne toll na noonu sax borom bi subhanahu wa taala daf leen koy jéggal kon mbokk yi tudd borom bi subhanahu wa bokk na ci jëf yi nga xamante ne day diisal balance yi jaam bi yowm alqiyaama borom bi moo wax ci alquran ne ya ayuha alladina amanu zkuru llaha zikran kathira wa sabbixuuhu bukratan wa asila huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatahu li yuxrijakum min adulumat ila annuur wa kaana bilmuminin rahima taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam wa aadda lahum ajran karima nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla deneen tudd yàlla tudd lu bare bare bare bare tudd yàlla lu baree baree bari mooy nit ki fu mu toll na fexe ba làmmiñam di tooy xépp ci tudd borom bi subhanahu wa taala mbokk jullit yi ndegam bu yowmal qiyaamee lépp lu jaam bi defoon dañ koy teg ci balance bi moo xam lu ñaaw la moo xam lu baax la bu boobaa kon nit ki warta xeeb lenn ci lu baax ci def ko waaye itam dara wërta tuuti ci moom ci jëf yu ñaaw jëf bépp jëf bu ñaaw rek na xam ne boo ëllëgee dinañ ko ko tegal ci balance am te bu boobaa du ko bëgg gis ci balance kon na ko moytandiku waaye bu mu xeeb jëpp jëf ju baax lu mu tuuti tuuti na xam ne bu ëllëgee dinañ ko ko tege ci tegal ci balance te bu boobaa dana mébét mu amoon ca lu baree baree baree bari ndax bu boobaa dana xir dana mébét am jëf yu baax yoo xam ne day diisal balance kon bu nit ki xeeb lenn ci lu baax ci def ko waaye itam bu mu xeeb lenn ci lu bon ci lu ci moytandik ko kem kàttanam ndax bu ëllëgee lépp loo xamante ne jaam bi def na ko rek dinañ ko tegal ci balance am kon nag na bari lu muy def ci lu baax ndax xamut lan moo ko ciy jariñ bu yowmal qiyaame na moytandiku lépp loo xamante ne day merloo borom bi subhanahu wa taala ndax xamut lan moo ko cay lor bu ëllëgee buñ ko tegee ci balance am kon borom bi subhanahu wa taala nee na mbir yi noonu la koy àtte yowmal qiyaama day teg balance yi maandu lay def jëf yu baax yi fii jëf yu bon yi fii kon ku nekk bari lal jëf yu baax yi ngir bu ëllëgee say balance diis mooy tandikul jëf yu bon yi ndax bu ëllëgee eh, eh, say jëf yu bon du dem ba not li nga xamante ne mooy say jëf yu baax mbokk jullit yi borom bi subhanahu wa digal nañu ne nañuy julli ak di sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi altayibin altahirin warda allahuma an sahabati rasulika ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان اللهم كن لهم في كل مكان اللهم الطف بهم وارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج اللهم أصلح أحوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم اللهم اكبت عدوهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم انشر الأمن والرخاء في بلادنا وبلاد المسلمين واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار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 هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء دنياك دع أسبابها واهنأ بساعات الصفاء واملأ كيانك خشية واملأ